عيس مني لو ينجي ولي إبليس يناديت يا ولي عيس مني لو ينجي ولي إبليس يناديت يا ولي عيس مني لو nous allons découvrir ensemble la ville sainte de Touba au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Touba, l'arbre sacré du paradis, fondé par cher Ahmed Bamba. Mais Touba n'est pas né d'un simple coup de crayon, mais de la volonté des mourides, guidés par la vision de leur marabout et de ses successeurs. Touba, ville musulmane et pieuse. Touba, où la prière, le travail, l'entraide et l'éducation guide les pas des musulmans mourides. Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abiballah, plus connu sous le nom de Cheikh Ahmadou Bamba, aussi surnommé Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Muhammad. Il est né à Mbaké Baol, un village créé par son arrière-grand-père, Son père, Mammor Antassali, était un grand érudit, un maître coranique et jurisconsulte réputé. Lui enseigna le Coran qu'il maîtrisa très jeune. Sa mère, Sorna Mamdiara Bousso, reconnue comme une sainte, était surnommée Diaratullah, l'approche de Dieu. Elle accomplissait avec dévouement et constance ses devoirs religieux et familiaux. En 1883, à Mbek et Cayor, le père de Cher Amadou quitta ce monde. Alors, toute forme de requête affluèrent de la part des rois pour faire du Cher un conseiller et magistrat. Cher Amadou refusa et déclara le service que je rends aux prophètes m'interdit d'être au service des rois pour leur largesse. Il disait aussi, j'ai remis mes brides éternellement entre les mains de Hamad pour adorer Dieu. et il fonda le mouridisme, ou la voie de l'imitation du prophète. En il fonde le village de Touba, dans un lieu austère et retiré. De plus en plus de monde vint vers lui, mais les colonisateurs de l'époque ne voyaient pas les attroupements d'un bon oeil. Ils arrêtèrent Cher Amadou Bamba le août à Diawol, et à Saint-Louis, les colons décidèrent de son départ en exil. Le 21 septembre 1895, sur le bateau Ville de Pornambouc, cher Amadou Bamba quitte le Sénégal et les siens. Il arriva à Libreville, où il passa trois mois. Puis il est envoyé dans des contrées austères, où règnent les moustiques et les maladies, au sud du Gabon, à Mayomba, où il déclara ceci. Ô océan de Mayomba, témoigne que je suis l'esclave de celui qui pardonne les péchés et que je demeure le serviteur de l'élu. Il y passa cinq ans avec des militaires et des prêtres. Ce sera plus à l'intérieur du pays, à Lambaréné, où il passera encore deux longues années avant de revenir au Sénégal. De retour au Sénégal, le Cher poursuivit l'éducation de ses disciples à Darumarnan. Mais le nombre de ses adeptes ne cessait de croître. La Mouridia prit une ampleur spectaculaire et demeura une source d'inquiétude pour les colonisateurs qui se sentaient menacés. C'est alors que le colonisateur décida de l'exiler cinq ans en Mauritanie, où se trouvait un grand érudit, Cher Sidia Baba. Et le Cher déclara ceci Je ne fonde pas mes espoirs sur le soutien d'un ami, ni ne crains l'agression d'un ennemi. Je suis entièrement confié à Dieu. De retour au Sénégal, Cheikh Ahmedou Bamba est assigné à résidence à Thiéyenne. Puis il fut envoyé à Diourbel, où il vécut en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie. En janvier lorsque les colons voulurent lui remettre la croix de la Légion d'honneur, il la refusa et déclara « Je suis le captif de Dieu et ne reconnais d'autre autorité que la sienne ». Ma récompense incombe au donateur, qui est noble majesté pour le service que je rends l'élu, qui est pourtant le donateur par excellence. En novembre 1925, Cher Bamba demande aux autorités coloniales une autorisation de construire une mosquée à Touba. Le juillet 1927, Ahmadou Bamba est rappelé à Dieu. Le conseil de famille désigna Cher Muhammadou Mustafa fils aîné du pour la succession de son père. Le nouveau calife fut chargé de la gestion des chantiers de la Mouridia, dont le plus important était sans conteste celui de l'édification de la mosquée de Touba. Pour mener à bien cette lourde tâche, son père avait loué les services d'un administrateur, en l'occurrence M. Taïri, commandant du cercle de Thiès. M. Taïri dilapida les fonds qui lui avaient été confiés. C'est alors que cher Mustapha décida de reprendre à son compte les travaux, mais il fut confronté à l'acheminement du matériel de construction. En effet, le matériel lourd ne pouvant se porter à tête d'homme ni à dos d'animal. La construction du chemin de fer était devenue un impératif pour la communauté mouride. 1500 hommes furent mobilisés pour réaliser 50 km de voies ferrées. Et en mars les trains pouvaient arriver à Touba. Ainsi, les travaux de la Grande Mosquée se sont déroulés sans arrêt de à Mais la Seconde Guerre mondiale éclata et le 1er septembre 1939, fit arrêter les travaux. La mosquée avait pris de la hauteur. Les esquisses des minarets étaient sorties. 3000 hommes marchaient à pied pour acheminer les pierres de la carrière de En 1945, s'éteignit à Touba laissant derrière lui une communauté meurtrie mais très soudée. En 1949, les travaux reprirent et les Mourides sont ainsi parvenus à ériger la grande mosquée dans un impressionnant travail de fourmi qui actuellement leur vaut cette hargne, cette bravoure, ce sens de la générosité et du sacrifice, mais aussi de l'efficacité dans le travail. La mosquée fut inaugurée par Cheikh Mohamed Fadel Mbake, alors deuxième calife. la ville de Touba est devenue aujourd'hui une grande cité religieuse. Dans la vision de Cheikh Ahmed Bamba, Touba devrait réunir les conditions idéales pour répondre aux besoins nécessaires aussi bien de la vie spirituelle que de la vie temporelle. Alors, animé par sa conviction que seul Dieu pouvait lui accorder sa faveur de venir à Touba, il s'est adressé à lui sous forme de prière et c'est uniquement à ce sujet qu'il a écrit son livre intitulé Matlaboul Fawzeni, c'est-à-dire Quête de la double réussite. Il adressa à Dieu ses prières qui se réalisèrent, où il disait Absous les volontaires qui ont bâti l'édifice si élevé de ma demeure, la cité bénite de Touba, de leurs péchés du passé et de l'avenir. Fais que cette cité soit un lieu d'adoration de Dieu le miséricordieux et de rejet de Satan le banni. Faites de ma demeure la cité bénite de Touba, un lieu où on plonge dans la voie de l'obéissance et de la tradition de l'envoyé. Prière et bénédiction sur lui. Convaincu que la connaissance de la science islamique est la voie royale qui permet d'accéder à la meilleure place dans la vie spirituelle, il s'adressa à Dieu et dit Fais que cette cité soit un réceptacle d'enseignement, un lieu de méditation et d'entendement, fait qu'elle soit un lieu d'éducation et un magistère d'enseignement. Dans le domaine du temporel, cher Ahmed Bamba avait bien compris que la réussite économique est un facteur déterminant dans l'accomplissement des obligations religieuses dans toute société, car elle assure sécurité et stabilité. Il disait Fais que cette terre soit une terre de richesse, de sécurité, de miséricorde et d'abondance tout le temps. favorise les habitants de Touba d'un bienfait en eau abondante, ruisselante et qui court à l'instar d'un ruisseau. Protège cette demeure du vagabondage et de la délinquance et de toute promiscuité. À Touba, l'alcool et toutes sortes de drogues, ainsi que l'indécence, sont interdits. Cher Ahmed disait Protège quiconque aura consacré un effort dans cette cité, y aura effectué une visite, et pardonne-lui ses péchés. Ainsi, chaque année, Touba enregistre plus de 3 millions de pèlerins, surtout pour le grand magal de Touba, qui commémore le jour du départ en exil au Gabon de Le Grand Magal est une action de grâce. Cher Amadou Bamba disait Quiconque te rend visite pour solliciter tes biens, comble-le de faveur et de bonté si tu es riche, mais ne thésaurise jamais ta fortune par crainte de pauvreté. C'est Allah le Très-Haut qui t'a offert cette richesse. Si tu la dépenses délibérément pour son amour, il te restituera tout ce que tu auras dépensé. Pour la lecture du Saint-Coran, cher Amadou Bamba disait Quiconque veut parvenir à proximité d'Allah doit lire le Coran sans jamais l'abandonner. Celui qui veut, dis-je, obtenir l'agrément d'Allah doit lire et méditer le Coran. Mazalik. Et pour l'éducation coranique, de nombreuses écoles, aussi bien à Touba que dans le monde entier, ont été bâties et prochainement une université verra le jour. Les mausolées des grands dignitaires mourides sont souvent au pied de la mosquée. Ainsi, après une prière pour honorer le fondateur, les mourides prient en hommage au successeur de Cheikh Ahmadou Bamba et de la famille. Touba, créé en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba, a grandi après sa mise en terre en nous voilà en 2011, soit 84 années où les Mourides œuvrent pour Touba. yéen bokk taalib yi mënuñu leen waxtaan yéen waxtaan woo xam ne dama bëgg nu taylu ko bu baax a baax ma wax ko waxin wu leer ba ba ma fi bàyyi ko kenn du ne lii la jublu woon a wax ba lii la façon woon a wax ba lii wax ji dama koy waxal sama bopp tojal ko sama bopp leeralal ko sama bopp ma di leen yëgal ne te tabaski ga wax naa leen di leen nun ay morit la ñu te duñu yam dong sax ci doon ay morit ay saarix la ñuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis ndax sëñ Touba moo sos murit waaye bi mu sosee murit it Touba gii da koo sos jële ko ca tuubaa ga ca àjjana kon nag bu waxee ne ab li abdin muridin saadixin texe ñeel na bépp murid boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga xam ne ci la ab murid di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yépp def ko te benn bu ngeen ci defan mu doyu sëkk may leen la ngeen bëgg kon danaa mën a waat ay saadix ngeen danaa mën a waat ne li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bi xidmatin la wax aw bi hubbin la wax aw addiyaati la wax te yooyu yépp maase ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëf la man lépp kon nag seenu saadix moom mën naa koo seere fu ne nga di leen yëgal nag ni leen nun sëriñ Tuuba la nu am te yaakaari benn murit bu jàll sëriñ Tuuba amul man naa daal fu ne di bérému waaye bu yegg fi sëriñ Tuuba fi lay yem kon nag ngeen yëg ne sëriñ Tuuba moom mu nga xam ne képp ku koy jox sa bopp da nga koy wax ne ko jébbal naa la sa sama bopp àddina jébbal naa la ko àllaaxira moom it mu wax ne képp koo xam ne ñëw nga fi man te àddina indi la fi jaaxaloo ma ndax yàlla jox na ma ba mu doy sëkk te soxlawuma ci dara ku ko fi wut si am ko wax ne àllaaxira itam koo xam ne indi na la fi loo ci soxla mënal naa la ko te dinaa la ko defal wax ne kenn rek ma mën a jaaxal koo xam ne xaw ma na ma koy def mooy koo xam ne daal ni ma yàlla def néexu te loolu def naa bëriwul kon nag ma di leen yëgal ni la ku yaakaar nit jébbal ko sa bopp àddina ak àllaxira mu mënal la lu ne tey ak ëllëg ah war ngaa góorgóorlu nag ci xam ne jébbal ko gi nga ko jébbal sa bopp mu nangul la ko doyoon na sëkk teraanga ci seen diggante doyoon na am sax seen diggante wëlbatikoo nag kenn ci nun ku ne mu teral ko teraanga joo xam ne gor daa wax ni xooli ku leen tere ñu ne yàlla na nu fekk sa bis ba jaay ci sunu bakkan fukkeel ba te rellu monsieur su leen koo teral mu teral nu ko kon nag te am bis bi war a ñëw te ñëwagul war na noo baxal bis bi di ci góorgóorlu te dara mënu koo tee ñëw te bu nu wéyee ci diggalam di di ko sàmm li muy tere nu di ko sàmm bu nu ci yeggeen bisum ndam rekk lay doon ci léegi nag man day def bu waxee ci kaw ñu ne day xuloo bu ma waxee li nu war a def ñu ne daa mer ma di xamal nag ni leen xuloo ak mer dara duma ko ci def feeg may dund ndax xuloo moom li koy waral xam naa ko ñaar ñu déggoo di ko xuloo te man du ma xuloog buur du ma xuloog baadoola du ma mag du ma xuloog ndaw ngir yi war a tax a xuloo moom du jaar sama digg ak kenn xëccoo njariñ walla xëccoo daraja moom doo ngay téye déggoo ba wax tax di xuloo te war na ci yàlla ni duma ko defa kat mer bu ngeen gisee ne jàppee ne mer naa déedéet damaa am lu ma naqari mer moom dara mënu ma koo tax a def lu may gis rek lu naqari yàlla lu ma mënta faj loolu it dafa may naqari ngir la ma naqari yàlla dong waaye nag du tee danaa xam ne inna mun mujrimina muntaqimuna yàlla bi mu ko waxee boo gisee kuy def loo xam ne lii neexul yàlla it bu la naqaree war nga ko mën a gàttal naqar wa yëgul fen man du ma mer du ma xuloo dama bëgg daal loolu leer leen ma bëgg nag mu wóor leen ci ne sëñ Tuubaa mi mu yaakaar lu dul moom diiru li mu fi ne topp yàlla la ñuy digal jaamu yàlla la ñuy digal léegi la ñuy digal jàpp sunu njàmbur la ñuy digal ak jub la ñuy digal ku yaakaarum du kenn nag la mu digle da koy sàmm te fas yéene di ko def nan góor góorlu ci sàmm ndigal yi sëñ Tuubaa yi may ndamal tey moo nuy may ndamal ëllëg man nag maa ngi wëlbatiku ci kattanam ak dara jàmm di ñaan ci kattanu yàlla mi nga xam ne moom moom lépp ci soxla wu ci lenn mu defal nu yërmande defal nu ndimbal naataanga moom bëgg nañu ko lool danañu ko ñaan waaye naataanga joo boo ma sa gis rek bekkoore ca topp naataanga joo sa gis daa mu ji wow koŋ xéewal rek a mat a ñaan yàlla nañu ko yàlla defal defal ko réew mi defal ko mboolem jullit ñi xéewal ni ma leeral leen mooy lan mooy loo xam ne foo ko fekk day tooy xib terrain ba nga xam ne moom moo moo sax moo ko saxal terrain bi bëtu nit di ko tege xam-xamu doomu aadama yëggu ci ba mën koo dog loolu muy xewil yàlla nañu ko yàlla defal te saxal ko ci réew mi defal ko boolem jullit yëpp ginnaaw bu ma xamee ne nag jottali naa leen lii nga xam ne mooy sama yéene yéene ko ñëpp ñaanal leen ko ma di leen wax nag laay joo xam ne néewaa na lool Sëriñ Tuubaa tàggoog mbooloo te waxu leen ko moom bu jëntale ko sama yoon saabiqu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaai wal ardi uhiddat lillazina amanu billahi wa rasulihi zalika fadlullahi yutihi man yasa wallahu zul fadli azim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yoo xam ne sëñ Tuubaa rek la ñu yaakaar tey moom la ñu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek la ko def bi ñu ko defee sëñ Touba nag dafa am sabab sabab si moo di sëñ Touba ba mu ne ñokk képp dafa daal di wane xalaatam la mu bëgg a def ak fa mu a jëm la mu njëkk wax moodi di sahitu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi seere naa ne yàlla rek moo moom bindéef yépp seere naa ne yonente bi mooy ko ñu ci dëgg loolu ñu daal xam kii ne jàpp na ne yàllaay buur jàpp na ne yonente bi mooy ndawam mu daal ci teg ne dalla ni yàllaahu ala muhammad yi waxaada ni muhammad li samadi yàlla teg tegtal na ma yonente bi yonente bi xam na may jëme ma ci yàlla ñu daal xam ko ne kooku yàlla yonente bi rek lay nekk seen diggante boolegu ci leen wax mu nekkee ci biir loolu di dem di dem ba yegg si lawu daxara ni yeeti waxin mi waxit fati wa roohi wa jismaani wa kulli bila sukri jox naa ko sama diiru diiru jamono jox naa ko sama yéene jox naa ko sama xam-xam jox naa ko sama liggéey jox naa ko sama ruu jox naa ko sama yaram jox naa ko sama lépp ci lu dul ak nangooti ko loolu ba la xam nag ne kenn amatul ci moom lenn seddul mbokk seddul jàmbur seddul kenn yàlla rek si jox lépp bi mu defante yàlla ci biir loolu itam bala mu yaakaaroon ci yàlla bay def yàlla noonu yàlla defante ko ko ba am ci lu kawe njortam te la waxee ne hubbii wa wuddii wa rilwaanii li man xabaani li ma xat faa xamas noonu sama cofeelu xol sama cofeelu biir sama ngërëm sama cantoog làmmiñ lépp dox naa ko ci nga xam ne may na ma lu kawee sama njot muy yàlla kon nag nun ay murit lanu murit gi dara waral ko lu nit boo ñëwee ci moom ni ko dama dama bëgg nga jur ma mu nangu laa jur aw santam ngay daal di fab moom tur bi ko ndeyam ak bàyyam tudde woon da koo bàyyi fee tudde boppam wëlbatiku di muridullahi muridullahi nag képp ku jàpp ci moom rek daal koy doon kon nag mel na ni murid amut sëñ Tuubaa rek am ngir bi nga jàppagut ci ci kenn ñemewu laa te bi nga ko jàppee kenn ñemeetu laa wooteel du kon murid amut sëñ Tuubaa rek am nun murid nag sunu jikkoo sunu melo sunu baax li nga xam ne ku la ko wax ak ku la ko waxut moom lay def moo di képp koo xam ne eh, ni yàlla def sëñ Tuubaa neex na la wutaleetul la ak sunu bopp sunu bopp rek ak koo mën a doon koo xam ne ni mu def ni ko yàlla def naqari na lii limaali wul la ci dara noonu noonu dong la ñu mel. العزيم نعم الكريم نعم